Pape Alé Niang moom la ñu def ko directeur général bu RTS nekk mbégte ak contentement bu rëy boo xam ne askanu Sénégal ñëpp dañ ko cee am rawatina ñun waa AGT News ndax dañoo jàpp ne lu mu mérité la non pas pour daal di koy récompenser waaye dafa bokk ci homme de valeur yi nga xam ne fii ci réewum Sénégal war nañu leen jox ay ndombal tànk ngir ñu mën a doxal réew mi jiital jub jubal ak jubbanti bu ko defee ñu mën a daal di tegaat lépp ci yoon askanu Sénégal bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal kenn ñu teg seen ab nguur moom Pape Alé bu ama am solo lépp loo xam ne tey jëlee sénégalais yi am nañ ko comme victoire ci lu ñeel wàllum démocratie xeex ci fànn bu nekk moom nag am na bés boo xam ne daf ko jagleeloon lépp lu ñeel dossier wu Prodac Mame Mbaye mañ cey tudd ak ay milliards yu yoo xam ne kenn xamul fu mu moom Pape mu def ci chronique bu ama am solo ñu fas yéene leen koo la bu leen fàttee aimé vidéo bi partagé ko ngir ñu bëri daal ci mën a jot ngeen abonné itam ngir benn ci suñu ay xibaar wala jàngat bañ ci leen raw nañu teewlu Pape Alé Niang muy àddu ci lu leer nañ ci dossier bi nga xam ne moo ñeel Prodac yee ci nag askanu Sénégal ci lu yaatoo yaatu ñëpp am ci lu leen leer ñuy xaar itama Europe Bassirou Diomaye fay ak usmaan Sonko dal ciy def li ci war ngir askanu Sénégal mën cee am lu leen leer Pape Alé Niang GT News ñoo déggandoo kàddu yi nga xam ne moom Pape Alé Niang yëkkati na ko jëmale ko ci dossier Prodac boobule. dafa xeexal nag réewum Sénégal ci fànn bu nekk moom Pape Alé taxaw na taxawaay bi nga xam ne moom lañ ko doon xaaree en tant que journaliste ak chroniqueur. bu ko neexoon am ay milliards. noonu naa wan ginnaaw askanu Sénégal tegee leen de côté jiital ay intérêt boppam waaye defu ko benn yoon dafa mës wane ne moom li ko yitteel du leen lu dul askan wi. lépp lu ñu moom ñu daal di leen koy delloo état de droit ju ko ci réewum Sénégal respecté suñu démocratie ak ak yelleefu doomu aadama yi ñu teg ko ci seen place lépp rek loo xam ne war na ci ñu dal di koy def loole moo waral tey jilee Pape Alé Niang dañu ko tabb mu doon directeur général bu RTS nekkul lu bett kenn waaye itam Sénégal yi dañ cee am ci kontante bu wér a wér a wér ndax dara waralu ko lu dul moom dëggu bi nga xam ni am na ko bopp ba tey te nag nekkul lu bees ci moom ndax moom Pape Alé Niang nii la taxawoo woon président Macky Sall 2012 ba ñu tabb ko ñeenteelu président bu réewum Sénégal ndax moom li ko ñor nekkul leen lu dul réew mi la ñu teg ko ci yoon ba kenn ku ci nekk mën cee gis boppam te ñu gëm ne bés bu Bassirou Diomaye Faye wala Ousmane Sonko defoon yoon te ñu am njortu ne loolu du mës a am dina bokk ci ñi nga xam ne dinañu ko dénoncé ndax li mu gëma ba ba tey xam nañu ne kenn mënu ko ci génne kon nag ñu koy ñaanal li nga xam ne teg nañu ko ci ndoddama daal di koy mën a attana waaye itam fi ko sénégalais yi di xaar mu daal di koy mën a jëmmal leen di gërëm di leen jaajëfal joxante ak yéen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jërë ngeen jëf